Ahmed Youssouf euh, Bengeloun ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay soxna si. voilà yow euh, nga ànd ak euh, wala sax nga bokkoon ci ànd nawle génn ci élection yi vainqueur ca mhm. départemental yu Kaolack. Mhm. mais dafa mel ni ba tey coow dafa topp seen victoire bi lu xew. waaw avant ma répondre question boobu da nga may may mu nuyu sa auditeurs yi. Mhm. fépp fu ñu mën a nekk ci Sénégal rawatina nag ci Kaolack nangaan ak ci Grand Yoff. Euh, waaw di sant yàlla alhamdulilah alhamdulilah yàlla jox nañu ndam li euh, mu nekk nag euh, loo xam ne ne askan Kaolack lañ koy dellool di leen ci dellu njukkal rawatina ndaw yi victoire victoire ndaw yi la ndax ndaw yi ñoo génn massivement tànn seen moromu ndaw waaye tamit Kaolack yëpp génn li participation ci élection yi mosuñu ko gis élection locale élection nationale sax mun naa ne élection yii nii ko donc coow li bëri na xam nga garab gu ndaw moom su daanoo doo dégg bëri waaye ab guy suñ ko daanelee noo def ngeen dégg kakak ak fépp li waral yi mooy benn xale bu ndaw moo yëkkati benn ponk la waaye yal na ko ba ci kaw dóor ko ci suuf loolu moo tax kooku nag bañ leen ne daan nañ ko moo tax coow li bëri lii rek la ak ñàkk gëm yàlla lii waral coow d'accord coow li mu mel ni ay recours bëri na jamono ji ci ñaari côté yëpp ñu bëggoon a xam recours yooyu nu mu demee yéen seen côté lu waral seen recours. waaw xam nga ñun. Hmm. bu ñuy def bu ñuy recenser voix hmm. bu mu des lu dul tiré di génn rek tiré résultat yi. Hmm. dañoo constaté que écart bu amoon suñu diggante. d'après ci procès verbaux yeeg yooyu noonu. diggante bu waa ji dem di ne maa ngi génn dem indi tiré résultat yi ñëw rek. ñoom dèjà dem tiire rek def nañ ko quarante cinq minutes quarante cinq minutes bu ñu ñëwee ñu ne mënutuñ mënutuñoo tiire imprimante dafa am mais on va vous donner les oralement ñu ngi koy joxe commune par commune bu ñu koy jox commune par commune son mandataire bu fa nekkoon monsieur Mbaye Ngom ma koy félicité de passage di ko remercier ci taxawaayam ak moom ak euh, adjoint ba fa nekk tamit euh, di remercier waa ànd naawle ànd mi nga xam ne ne sëriñ bi moo ko jiite ma koy félicité moom ci victoire bu mu mm-hmm. di ko remercier ci taxawaayam euh, monsieur Mbaye Ngom moomu di constaté que ne ah, mbir mi de ñoom ñoo ngi euh, yenn communes yi nga xam ne ne ci ñu ci àll bi te ñu gañe ko ñoom ñoo ngi ko dañ ko gonflé gonflé ba jéggi ba tax na écart bi ñu amoon ci ñoom bi nga xam ne ne trois mille quelques voix la mujjee nekk mille sept cent cinquante six voix déjà ñoom rek seen tableau de bord seen mandataire il mm-hmm. y deux mille neuf cent voix de différence mais après xam ban quelle machine lañ jaar ils ont ñu benn écart de mille sept cent cinquante six voix ah, comme dañu bu ñuy campagne suñu slogan moo nekkoon setal mhm. soqali sàmm slogan boobu nag sàmm boobu noonu dañ koy commencé ci baat askan bi ñu dénk duñ nangu nag dara wàññeeku ñu ne par pour des raisons de transparence mhm. euh, lii il faut leeral ko nak lañ def ba voix wàññeeku. d'accord ñoom ñu recours. Mhm. ñoom seen recours yenn bureau de vote yu bëri ci Kaolack muy bu Medina Baye bu Sengane Badiane xam ne foofu la sëriñ bu voté ak Touba euh, Touba Ndoro ak lycée Wal Joojo Ndiaye ak Ndire xam nga lu ko nee nañ ay xaj <laughs> ngi reetaan sax ay xaj ñoo ay xaj dañu ñëwoon foofu tiital ba tax seen militaire yi génnuñu voté mel na ne xaj yi dañoo xamee militant benn julun mhm. ak militant beneen waa ji te loolu suñ ko waxee man daf may jaaxal ay xaj xaj yi kenn gisu ko ñaareel bi participation bu record moo am euh, Kaolack ci élection locale yi élection locale bu soo am participation historique yi kon xanaa nit ñi jël vote ñoom ñooy ragal ñu mhm. beneen bi xanaa an ani police wala dañu bëgg dañu bëgg euh, wax ne le préfet ak euh, le ministre de l' intérieur seen force de l'ordre yi bien travaillé ñett ñetteel procès yi nga xam ne mooy génne ci bureau de vote mhm. amul fenn fu ñu wax am na benn incident bu daw ci bureau yi procureur yooyu yëpp yu ci commune bureau yu bureau yu commune yëpp RAS lañ ci bind rien à signaler xam ne ñoom dañ leen daan xamuñu lu leen moo tax ñu jaaxle mooy ñu wax waxu xaj pour xajamal victoire bi mais victoire du bos. kon daal yi moo tax ba yow kenn laa installé. loolu tey warul noonu nag loolu la loolu Euh, juge bi évoqué mais waru demee noonu. Ah. en matière électorale le recours n'est pas suspensif. ma wo avant foofu rek wax la ma expliqué la gars ouais. ma ma ma expliqué la. oui le huit le préfet. Mhm. comme la loi lui donne l'obligation daf ñoo convoqué ne ah man dama installé. Mhm. dama lay installé le quatorze ma ne ko amul benn problème. man taxawal dama dama lay installé. Mhm. ma ne ko amul benn amul benn problème. Euh, mu ne la quatorze dinaa la installé mais bu ñëwee le douze mu notifié ñu daañu xamal ne dafa am dafa jot ordonnance mënutuñu installé benn ordonnance moo ne moo jóge ci juge président cour euh, cour d'appel bi premier président mm-hmm. d'accord dégg naa da mais bu bul installé ñii parce que euh, dafa am lu ko boo il faut ñu vidé mu nekk lu ci lan parce que ah waaw mais recours mus a suspensif en matière eh, électorale. Uh-huh. fii léegi mooy. Uh-huh. Mbacke. Uh-huh. am na recours terewul installé nañ président conseil départemental bi. Thiès am na recours te installé nañ monsieur Babacar Diop. Sangalkam amoon na recours te installé nañ monsieur Omar euh, kii gagné Omar mais pourquoi ak Kaolack mu war a nekk exception man lii moom muy lii moom moo moo indi lii lii moo indi. sama njàqare gi ma am. loo foog euh, lu ñuy waajal. ah en tout cas lii xeeñ moom neexut ndax nag suñ demee ba président cour d'appel bi di jalgati. Mm-hmm. sama am naa droit poser wu des questions mun naa nag dafa juum waaye jalgati moom am na parce que président cour d'appel. Mm-hmm. benn prérogative rek am ci élection locale yi nii. en euh, matière de contentieux mooy lan. Mm-hmm. recevoir requête yi ak daal den traité ci app bi ko joxe leneen lu mu def rek ci jalgati la nekk. te loolu nag dama ci am ay firnde yu leer ci naka. ci naka waa. en 2014. Mm-hmm. Mansour Faye dafa gagné élection yi ci Ndar. Mm-hmm. Amath Fall Braye di contesté daal def recours. préfet bi bu mu installé mu am euh, benn euh, ordonnance président cour d'appel bi jël ne ko bu mu ko installé parce bi ñu recours préfet ne ko man damay installé parce que je suis républicain après beneen ordonnance génn daa daa daa euh, daa di annulé bi ko wax ne ko bul installé toujours en 2014. Mm-hmm. Aïssata Tall Sall. waaw dafa gagné Racine si daa di contesté bu mu contesté ordonnance génn daa ne Aïssata Tall Sall jóg ci dans les vingt quatre heures qui suivent euh, ordonnance bi premier président cour d'appel daal ci dellu ginnaaw mhm. wax rek ne na lii jurisprudence la lu am la élection lo élection en matière électorale le recours n'a jamais été suspensif et que le président du cour d'appel ci élection amul droit d'y notamment en interdisant ou en demandant de reculer l'installation de demander de, de, le report de l'installation du maire wala du président euh, conseil départemental. moo tax ma ne fii monsieur Ousmane fu juum juumul bu rëy mu nekk lu dangereux nag parce que lu tax ñu koy xeex. Mhm. te dinañ ko xeex. oui sa ça de d'être un précédent suñ ko bàyyee day def jurisprudence ëllëg mën nañ ko def keneen. Mhm. te lii nag mën na taal dëkk bi parce que ndaw Kaolack dañoo taxaw témoin ah. dafa am combat bu ñu di mëne muy. la muy l'accession des jeunes au pouvoir Kaolack jeunes yi joxuñu leen benn mais ren gis nga am na changement. yenn yéen ànd nawle bu weesoo changement gi ngeen bëgg ndawu Kaolack ndax dafa am lu ngeen tëral comme plan ngir teggi yooyu lépp ngeen jàpp ne ay euh, euh, maanaam àndul ak yoon. waaw xanaa xeex injustice bi rek ñu ngi koy ci ordonnance bi nga xam ne ne juge bi jël na ko. Mhm. ne buñ nañu reporté suñu installation xaar bu ñu wédee contentieux moom la ñu njëkk a xeex parce que sax même fekkee sax na wóolu nañ suñu bopp wóolu nañ justice pour pour xam ne ne kon euh, recours bi dinañ ko tere ci dans dans les règles de la de l'art mais lu jaaduwut mooy jalgate bi ñuy jalgate parce que le recours n'a jamais été suspensif soo ko xeexut ëllëg dañ koy def keneen dañ koy appliqué euh, dañuy attaqué ordonnance bi léegi kañ lay doon loolu loolu avocat yi ñu ngi ci suñ ko defulee ba pare dinañ attaqué tamit dinañ bind préfet ak son supérieur hiérarchique mm-hmm. muy le gouverneur bind ministre de l' intérieur mi nga xam ne mooy seen patron ñoom te dinañ bind tamit sax le président de la république wax ko lu xew kaw la nanga ñun dinañ ko ne bu ñuy jàppale président de la république boo président sax nekkagul woon nekkagul président. Euh, dinañ def loolu mais dinañ defar beneen xeex mooy. Mm-hmm. ñi ma jeunes yi ma ak jigéen ñi ma tànn. Mm-hmm. ak ñëpp ñi ma carte ci département bi. dinañ organiser une départementale pour ne pas dire régionale ou nationale le vendredi ñu ngi ko jàppoon mercredi mais préfet bi am autorisation pour mercredi nee na délai dafa gàtt dañ ko yéex a wax mais bii nag jox nañ ko ne ko vendredi la nañu ko constitution bi digalee nañ ko war a def ak nu ñu ci may droit lañ koy def dinañu ko suñu autorisé dinañ marche suñu autorisé wul dinañ marche ah kon kay doonatul euh, pacifique euh, bu ngeen waxee euh, amu leen autorisation ngeen war a wàcc si mbedd mi bu boobaa di ngeen force de l'ordre yi ñu tere leen a dox lu tere dox pacifique da doon ñu da doon mën marche pacifique maanaam ñun kenn xam man kenn xamee ma ci violence ci kaw ñàkk ci kaw am autorisation am marche Sénégal bu autorisation déclaration lay def wax ne fii nga jaar ñu wax na force de l'ordre encadré d'accord organiser un grand rassemblement tout en on est des républicains de loi yu fi am. d'accord Kaolack ñëpp xam ne jàmm lañ ko xamee ñoom nag ñoom ñu autorités yi jàmm gi xam ne ne nag moo nekk ci Kaolack naa nga nekk ci Sénégal seen loxo la nekk. d'accord nañ doxal nañ teg dëgg. may wax nag préfet dinañ ko bind xamal ko ne ko nga def mu préfet fa mu defoon en 2014 bu ko juge bi bindee ne ko bul installé Mansour Faye mu ne ko man juge républicain la loi moo ne. ku falu dans les quinze jours qui dama la war a installé. d'accord. dama dama la suivre ci yoon bu baaxul di jël parce que le préfet n'est pas tenu de suivre une ordonnance sans fondement. Mhm. Euh, sëñ bi Ahmed euh, Youssouf Bengeloun ñu lay jaajëfal bu baax a baax. waaw maa ngi leen di fay di leen wax ne maa ngi lay remercier di wax ne soo militants yi surtout jeunesse nag nee na nañ nañ am ak dal bu ñu toj dara bu ñu dara ñun dañoo ñëw pour defar Kaolack ndàngaan dèjà Kaolack dara la sax dañ koy yàq sax li fa am as tuut ñu ko yàq parce que ñun dañu ñëw pour sàmm Kaolack ndàngaan dañu ñëw pour soqali Kaolack ndàngaan dañu ñëw pour ko nit moo manifester teg ci yoon teg ko ànd ak àndal nañ jël référence ci man li nga xam ne ne kenn mosuma dégg ci wax ju ñaaw kenn mosuma ci violence ku xam-xam ne ku dal tey nag su ma nee damay organiser marche c'est parce que pour wan nit ñi ne jalgati lu ñuy jalgati ñun duñ ko nangu Sénégal dafa jógee ci coupe d'Afrique gagné ko nag mu nekk historique dëkk bi nekk ci jàmm président de la république am état de grâce opposition ñëpp ànd ak ñoom parce que jeunesse Kaolack quoi ñoom moom euh, jeune jeune Kaolack quoi moo tànn te seen choix boobu noonu xanaa ñu jaar sama kaw waaye incha allahu rabbi kenn du ko salfaañe. d'accord jërëjëf